sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay nuyu ziar. dalaw ziar bu baax a baax. naka njaboot bi mbaa yéen ci jàmm. ñu ngi si jàmm bu baax a baax alhamdulilah. Ah, thème bi mooy waa waa APR. waa sëñ bi ma leen leen. Mhm. mais yéen numéro neuf boobu doon tiire mais numéro neuf bi anamu. est-ce que duñ la ko daal di laaj. waaw mais mais man xam nga man lu ma jaaxal Sénégal chaque jour dañuy jël ay débat yoo xam ni. Mm-hmm. amul solo. Mm-hmm. parce que waa APR ñoom jeexal nañu ñooñu jor ñoo débat jeexal nañu mais numéro neuf boobu doon tiire ba nit ñi ay nit ñi naan ay nit yu bëri dee nañ ci. Mm-hmm. mais ñi dee ñëpp ala ala léegi nit ñi dee ñëpp ñoom dañuy perte. mais numéro neuf. ñu ko génneel ñoom duñ ñu defal du ñu defal kii génneel ñu numéro 9 boobu ana ko numéro 9 bi borom maillot bu xonk bi mais sëñ bi nañ waxante dëgg mais alal réew boo xam ne lu mat ñaar fukki nit ak nangam dee nañu ñuy wax ay xeexu APR ay Amadou Ba xaw ma Diop Sarr mais ñoom nañu rayante ñoom ñoom dañoo rey Sénégalais yi ñoom bu ñuy rayante ñun sañ yoon newu ci. Mm-hmm. ñun lu ñu bëgg a xam mooy numéro 9 bi anamut numéro 9 bi moo ngi dund wala dafa dee ala numéro 9 bi sëñ bi nañu waxante dëgg ala ñu yoroon ala mer bi yooyu yoroon seen pick-up yu weex yi doon tiire si kaw nit ñi ba ay fukki ñaar fukki nit ak nangam dee ci anañu ñooñu ñooñu ñëpp anañu mais après ñu ñuy indil ay diversion ay ay xalaat yoo xam ne ñun amul sens. di histoire ak di xeex ak ñoom bu ñu doon rayante seen biir di dee benn benn tamit sañu yoon newu ci parce que ñoom lu ñu rey moo ëpp téeméer yoon ñoom nañ ñu wax numéro 9 bi tant que police nee na numéro 9 bi bokkul ci ñoom te ñoom la àndaloon mais ñun nañ ñu génneel numéro 9 bi ngir yàlla góor a suul. ah xëy na yoon a ngi ciy def euh, liggéey comme ko yàq wax ne nga ni ñoom àndul ñu ak ñoom xëy na ñu ci def liggéey boobu solo. mais mais saa waay moo ngi bëgg a yàgg de <laughs> mais numéro 9 bi ñoom waxatuñ sax lu ci jëm. sawaay mhm. gis nga ni ñu def euh, euh, euh, cent milliards Covid yi ni ñu def xaalisu Covid bi nga xam nga xaalis Covid bi gaa yi nga koy commencé di fàtte mille milliards yi xooma mais numéro neuf bi noonu lañ ko nar a fàtte mais mosu nga gis gouvernement boo xam ni moom dara am du yegg ah mille milliards bu yegg ñi tee deux mille deux mille vingt et un enquête deux mille vingt et ba léegi génnul. numéro 9 bi génnul xale yi doon kii si liste yeewu askan bi yëpp xale yooyu dee ba léegi enquête bi fu mu toll rebelle boobu ñu rebelle boobu ñu jàppoon rebelle bi benn rebelle boobu ñu jàppoon naan xaw ma da doon ñëw di kii anamu. Hmm. mais Sénégal ñun dañuy foo wala ñun dañuy nelaw ñun. bi la ñu waxante dëgg man daal APR yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu jóge ci nguur gi. parce que benn fitnaal nañu Sénégalais yi te indiwuñu benn njariñ Sénégal lu dul lekk xaalis ak rey nit yow daal demaa bu ma lay wax mooy dimbali ma rek numéro 9 bi nañ ñu wax numéro 9 bi fu mu nekk maa ngi lay jërëjëf. jërëjëf jaajëfal ko bu baax bi ngeen def ni moom ngeen jaax ci numéro boobu numéro yooyu affiché ci bas d'écran bi ngeen wax seen xalaat. Euh, ci ñaari ponk yi nga xamante ni moom lañu ñu daal di euh, choisir tey ngir waxtaanee ko ak yéen euh, bi njëkk nekk li nga xamante ni si moom mooy wàllum politique. ak li nga xamante ni moom mooy benn bokk yaakaar ci seen choix candidat bi nga xamante ni moom moo war a wutu kii di président de la république Macky Sall ci élection présidentielle yi ñu dëgmal en février 2024 mu jur coow seen biir rawatina seen militant yi nekk démb coow lu metti amoon seen biir fële seen siège ba ñu jël mbokk mi nekk ci ligne bi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi bi ñu ngi lay ziar baax a baax. Alxaaj ah, benn maa ngi nii de. ana dum xaaf xanaa dum xaaf yow doo ko am foo ko denc da nga ko denc ca euh, benn ruq boo xam ne war naa génn de. ah dum xaaf mi mi ngi man de. kon <laughs> na gars yi na gars nañ nañ gën ah mu ne yow. Hmm. comme que comme que jàmm ah, am na jamono ji daal nañ ah. denc du xaaf ba ci kanam. <laughs> sëñ Aliou dañ la waaye hmm. nga xam ne ñooy teewlu télé bi di ci woo di ci joxe seen xalaat di ndokkeel ñëpp nag di leen balu àq waaw kon yaa ngi ci waxtaanee réew mi wala. Mhm, ñu ngi ci euh, ñaari ponk yu ñu war waxtaanee tey mu nekk euh, euh, politique bi jiitu nekk ab fële ca Benno Bokk Yaakaar seen problème de choix la ñu am ñii ni Abdoulaye Diouf Sarr la àndal ñii ni Amadou Ba la àndal mu juróon coow lu métti seen biir fële ci seen siège ba ndekki démb. beneen bi nekk exploitation pétrole bi nga xamante ni si dañ ko jàppoon atum 2023 bi ñu nekk dañ ko daal di reporté ba li nga xamante ni moom mooy atum 2024 waaw waaw waaye bu bu bu pétrole bi moom la na kii rek ndax lu lu baax moom lu mu gën a kii rek nuñ ci gën a mën a taxawee rek nañ ci na na na na gaa jël matuwaay rek mu waaw loolu moom euh, ndem yàlla joxe na ko ba noppi nañ ci jël matuwaay rek ah waaw waaw mhm. lu jëm nag ci wàllu politique bi moom wax dëgg yàlla war naa waruta ñaaw de dara waruta ñaaw mhm. ndax nit buñ bokkee yàgg ànd war na nawloo ante boo gisee ñu dem ba sax yenn ñu naan politique di du mbiru diine diine nangam nangam waaye liñ ci dugal a tax ñu waxee noonu ndax diine bëggul euh, fitna wala euh, yàqalante walla euh, xëccoo xëccoo xam nga wuute mën naa waaye xëccoo moo baaxul diine moom du bëgg xëccoo wala taf so maanaam bu wala tanaasoo waaw bu leen xëccoo bu ngeen ko defee rek fa taf solo wata sabar yaakum ma daan nga dégg maam Abdou Aziz mu baax ma daan wax ne bu ngeen ko defee da ngeen a bu ngeen xëccoo rek eh, da ngeen loos da ngeen ñàkk ba pare yonjox mooy dootu leen am kàttan dootu leen am doole hmm. kon jaru ko ñoom ñëpp waroon nañoo mën a bokk sax benn ay jataay yoo xam ne ñoom ñëpp a fànne eh, joxante sax ba ku bëgg jël kàddu na ko Euh, mu war a dem ba war a leen a jaral kuñ bëggoon na ko kaay jiit ne jiital naa diw mii nañ topp ci diw mii waroon naa toll foofu sama sëriñ. Mhm. ah xanaa kon du Sénégal leen itteel wala askanu Sénégal wala tabax Sénégal wala kenn ku ne dafa war nga jëmee ci booram wala ay nitam man dama foog ne nag euh, Aliou Badou. doon na sëkk ñi euh, kilifa gu ne. kilifa gu ne di wax ak njabootam gi ko wër. am naa damay wàcceegum kàddu gi fii ndax ñeneen mën a dugg. Mhm. su ko defee waaye daal nañ dañ nañ joxante ci rek ñu ànd ànd ak incha allah. Mhm, jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah euh, bu mag a mag ci euh, moom jaajëfal ko bu baax a baax kàddu yi am na solo ah, mu mel ni nag lañu ñu daal di cërale woon ci waxtu daal di nay jeex. bu ko defee rek ñu daal di yëkkati daal di tàggatoo ak yi euh, nga xamante ni ñoo ñuy sant saa su ne Euh, tey nag ñu andil leen doon ñaari ponk mu nekkoon li gën a fes ci actualité euh, Sénégal bi euh, ndiki tey mu nekk ñaari ak ña mu nekk ñaari ponk ñu waxtaanee tey bi njëkk nekk wàllum politique ak Benno Bokk Yaakaar mi nga xamante ni si ni coow la daal dina fay bari lool lool ak li ko waral nag ndiki démb sax ci seen siège ba mu amoon fay jàppante yu métti ci seen biir li ko waral du lenn lu dul wàllum choix mi nga xamante ni si war nañ ko mën a amal président de la république Macky Sall en février 2024 ci élection présidentielle yi ñu dëgmal mu jur coow nag ndax nag ñi ànd ak kii di Abdoulaye Diouf Sarr dañu ne daal di ne moom la ñuy daal di euh, jiital ki ànd ñi ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Amadou Ba dañ ne moom la ñuy daal di jiital tax nag mu juru coow ndaka dem ci seen siège ba amoon fay jàppante yu metti beneen ponk ba nekk exploitation pétrole bi nga xamante ni si nii nemmeeku nañ ko fi ci Sénégal exploitation boobu nag ñu jàppoon ko ci atum 2023 bi ñu nekk dañ ko daal di donc reporté ba atum euh, deux mille euh, ñaari ponk yooyu noonu lañ doon waxtaanee tey euh, amoon contentement bu mag a mag a mag jano ak yéen ci seen kàddu andi leen ñaari ponk yooyu doon ko waxtaanee jaajëfal leen bu baax a baax jaajëfal suñu mbokk internet yi nga xamante ni si à chaque fois ñoom dañuy daal di topp ñi dugg ak ñi nga xamante ni duggul ñi nekk fii nii ci Sénégal ñi nekk ca bitim réew ña fare fale ca peut France wala États-Unis Allemagne ñi nekk fii ci Maroc Gambie Mauritanie jaajëfal leen bu baax a baax lu ànd bi ak ñun euh, di leen jox.